daanaka dugg nañu ba noppi ci màggalu Touba bi atum ren ji nag masum coronavirus bi tax ba lu ëpp ci yëngu-yëngu yi daan am euh, fii ci dëkk bu sell bi daldi wàññeeku bu baax wala bokk am ay coppite ci doxalin bi loolee sax lañu nemmeeku ci xabru yi nga xam ni lenn ci njabootu sëriñ Touba yi rawatina ay xalifam foofee lañu tëdd taalibe yi laxasaayu takk seeni mask fas yéene jaayante ji ci doxu nemmeeku bi nga xam ne jot nañu ko fa amel kuréel bi ñu denk wàllum organisation ziar yi rawatina waa dayratul xadimatul xadim kañu fa fekk nag ci peggu xabru sëriñ Fallou Mbacké lii lañu daldi xamal Euh, liggéey bi ñëpp ko bokk liggéey bi sëñ la bu ñëpp bokk euh, ñun ñu nekkati ñu ci ay doomu aadama yu ci xeebul lool sax nag euh, mais ci cëru sëñ Touba ak mbaaxam rek mooy yëkkati yenn cër yi rek di ko jagleel doomu aadama xëy na lool rek lañ ci am ñun. macha allah ñu di sant ñun suñu jëwriñ parce que peut-être am nañ ay éléments si biir mais lu ñu am am ay éléments am nañ ay jëwriñ yoo xam ne ñoom ñoo ñu jiite. Serigne Touba ñu liggéey loo mais lu mu metti metti rek mbecte la coonoy bànneex la cionay mbecte la bo xamanteni buñ koy def dañuy contane parce que luñu mëna am ci suñu aduna rek liguel Serigne Touba mo ñu ko gënal motax buñ ciy nekk mbecte la ñuy am. waaji ji di wuyoo Serigne Dof Gueye donte tour wi xawna kémané lol lu wër peng lañu ñu ci walum organisation bi lé yar gu mat andak ak talibé lay daldi di ni ziar si. te aw ma kay ko du Cheikh ibrahim sëñ Cheikh Ndigal mooy sama sëriñ bi man Cheikh Ibra Fall laa moom laa bokk ma wala maag sëñ Fall dix ans ngi nii maa ngi fi waaye sant naa ci bu baax du ma ci dérangé mag du ci wax mag lu nekkul ndax dañuy yar ak taalibe ak njëkk ak teranga ko moom ku ñëwee jokkee dañ ko am ci doole sëñ Fall man ne oma kër gu la ma boone di tam waaye ku fi itam yàlla sa aajo faju liggéey bi daa ko ci faslu farlu it di nga am li nga bëgg ci barke Cheikh Ibrahima Fall a takku liggéey dalal mbokku taalibe yi teew wéy di leen soññee ci moytandiku liy wasaare mbas mi di mission wu yile ndaw. Euh, yomb bi moo di comme sëñ Touba ñu ko sant ñu nekk ci euh, day dañuy fexe mu yomb ci ñun euh, jafe bi nag mooy nit ñi ñëw ñëpp noo xam seen jikko ndax mbooloo fi daje te kenn ku nekk buy ñëw day indaale jikkoom mais ci biir loolu ñun ñi nga xam ne ñun la suñu borom wala Serigne Touba mi moom liggéey bi teg ko si suñu loxo ñu yore ko ñun ñooy am benn compréhension bi xam ni ñuy nekkee ak ñoom ci côté communication côté bi ñu leen di accueillir parce que ku nekk fiy ñëw du doomu aadama yi kese fiy ñëw jinne day ñëw lépp dañuy ñëw dañuy màggal si comme ni doomu aadama yi di màggal see ci biir loolu nag foog ñu am ñun système boo xam ne dinañ ko nekkee ak ñoom ci suñu communication ci niñ leen di dalaleeg yëpp wax ak ñoom ci dal parce que Serigne Touba yar la woote. ñaar fukki at boobu ba léegi bay aadama Gueye mu ngi béy waaram ci bërëbu sëriñ falu Mbacké bilee ren ji nag mu fas yéene gën a pastefu ci liggéey bi. waaw ñun de moom fii moom dañ fee ñëw soppé mam Cheikh Rafal li nga xamante ni ñun ñooy organisation bi ban koy rek légui war naa mën a mut ñaar fi kat boobu ba tey ñu ngi fi waaw di wa kër mam Cheikh Rahima Fall soppé Lam Fall ñu woy ñu woy soppé Lam Fall ñu nekk fi nak di liggéeyal seigne fallu Mbacké ak seigne Touba Mbacké parce que àdduna ak àllaaxira ñu loon kon nak ñun organiser nit ñi si la ñu nekk waaw ku def loo xamante waroo ko ñu ne ka ah, sëñ bi defal nii defal nii nii gën a jekk jekkal a gën a jekk waaw waaye duñ si dóor kenn jëfandikoo gel hydroalcoolique takk masque rax si dolli di dandante lii yemut rek ci ay kàddu ndax ndaxte waa commission bi ñu ngi fexee di ko wëyal rax si dolli taalibe yi di ci góor góorlu bu baax Euh, ndax euh, ku xool li xam ne yombul jafe na lool lool lool mais jéem comme ni ma ko waxee mbégte la ci ñun muy gel yi ñu fiy def ak yëpp te macha allah kenn ku si nekk nag mu ngi dox def liggéeyam normalement ndax comme ni ñu ko waxee rek bu ñuy nekk ci liggéey sëñ Bamba dañuy kontaan ñun lu ñu mën a am liggéeyal sëñ Touba moo ñu ko gënal nañu nit nit di tegal ay milliards sëriñ Touba fayam yëpp moo gën gëni milliards motax luñu mëna am moñu ko gënal ñi ci nekk sonu lol lol lol lol mais bo leen di xol sax da nga des fois di nga am yermande ci ñom mais da nga leen xamne ñom ne yow mi leen di yeram ñom yeramuñu seen bop parce que mbekté mi ci nekké motax ah, mom Dof gay jëfé ndigal eh, képp mo waral mu sàmmoon sol masque lepp rek ngir sallo ak li Serigne Mountakha Mbacké dal di santané bo jëlé sarté ñi sant di nga fa am fi jam am fi salam to do fi jëlé lor waaw ñun ñëpp ngi ni ku ne dor fa dor maskam waaw man mosuma am masque woo waaye ndigal la ñuy wéyee saa su ne waaw man loolu laay wër boo xasee ndigal jóge moom dan topp rek waaw bu bu baax a baax bu baax a baax waaw loolu la ñuy wër tam nag toujours daal nañu xool sëñ bi rek fam la feete ak la wax ñu tabal ko ko toujours noonu la ñu wër mais bëgguñ fi ne di ay yeneen falafala man xaw ma xaw ma télé man xaw ma télé de man suñ boo rek moo tax waa télé barke sa waa xaw mu mel nii donte ziar yi mënul ñàkk benn yoon lépp rek daal di nañ ko tëral ngir mu méngoo ak santaane waa kër docteur. ko soxna si ñan jaar ni euh, dañ ko organisation boo xamante ni góor ñi ak fi ñu war a duggee soxna yi ak fi ñu war a duggee bëgg ñu dajaloo góor ak jigéen bañ nañ ko ba dañoo créer boo xam ne fi la góor ñi di boo xam ne fa la jigéen ñi di duggee génnukaay bi it seen nañuy génnee bokkul parce que bëgguñu jaxasoo góor ak jigéen ba nga xam ne du am benn werante du métti ci ñoom ñi ziar si dañ dugg ci jàmm ak salaam ziar si jàmm ak salaam sans ñoom ñu am problème ñun tam ñu bañ am problème. waa comité d'organisation bi rawatina euh, ndaw yi ñu bàyyi ci xabru yi fas yéene fexe ba ku nekk takk sa masque ziar ñaan say soxla te jëlee fa ay taw feex parce que ku takkul masque dañuy génn sax suñuy masque ñun jox leen parce que ñun doonoo am ay masque suñu masque yu bopp dañ koy yëkkati jox leen ko nee ngeen barkeeloo ko waaw parce que fi moom ku fi ñëw rek doo fi jëlee jàngoro waaw wóor nga fi jëlee waaw kooku moom da nga koy ñaan suñu fi ñëw. war moo xam ci wàllum sécurité wala bokk wàllum santé bi waa dayratul xajimatul xajim ñoom noppi nañu ci fànn yëpp ci ay kàdduk Madiane mbay am na contrôle parce que euh, comme liggéey bi liggéey bu yaatu la daayira bi du daayira bu ndaw fu ne la nit di jóge ci àdduna fu ne la nit di jóge di ñëw ci àdduna di ñëw di ci bokk Euh, kenn ku su nekk nag ak la mu ci yore am na ñoo xam ne dañuy superviser euh, superviser bi moo di ci biir bërëb bi am na ñu fa taxaw ñoo xamante ni képp koo xam ne màggal moo la yëkkati ziar moo la yëkkati ñoom ñu ngi superviser képp la yëkkati it ña lay teg ci yoon ñu la jël yóbbu la fañ la war a yóbbu ñu dogal ci lañ ca war a dogal ndax kenn ku su nekk am nga loo xamante ni moom lañ la géraloo. Touba bokk ci dëkk yi nga xam ne euh, coronavirus bi moom la gën a laal fii ci Sénégal donte sax feebar bi dellu na fi ginnaaw bu baax ci semaine yi ñu jógee màggal gi bëri na ay jiixi jaaxa yu mu jur. incha allah Serigne Touba moo ñuy moo ñuy yokk doole ñun amuñu doole ji amuñu kàttan mënuñu dara Serigne Touba moo am moo man moo ñuy dimbali ci lépp lii boo ñu fekkee ñu di ko def da ngay xam ne ñun ñi mënuñu ko Serigne Touba ñuy dimbali ndax euh, comme ni ma ko waxee lu jafe la lu metti la mais lu ci mën am rek Serigne Touba dina am lu mu def ci ñun loo xamante ni lu mu metti metti metti day mujjee oyof ci ñun. ci bërëbu Serigne Mourtada beneen ah, xar kanam lañ fa fekk waaye lépp noppi na ci wàllum protocole sanitaire ak fexe rek ba ñu respecté geste barrière mbokki le ak Dakaractu ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di leen tatagal di leen dalal jàmm di leen wax ne ahlan wa sahlan wa marhaban bik dal leen ak jàmm fii ci barabu Cheikh Mahamadul Murtada mujahidul akbar ñoo ngi leen di jaar lépp wekku ci ni ko borom bërëb bi daan digle ci ay jamonoom laata li yëpp di xew. ren xam nañ ne màggalu 2020 daa tombeek mbas mi nuy wax Covid 19 bu ko defee nag fii nga xam ne mooy barabu Cheikh Mouhamadoul Mourtada ñoo ngi koy amal comme niñ laan koy amalee waaye am na ay yi nga xam ne soppi nañ ko ci ci ndigalul sëriñ bi mooy kane lu mel ni takk maska ak laal sel bu ko defee loolu yëpp ñu ngi koy sàmm bu ko defee li nga xam ne li sëriñ bi gën gënoon a bëgg muy góor ñi ak jigéen ñi bu nu jaxasoo loolu di wax dëgg yàlla am nañ ci taxawaay bu mat sëkk ba gis ngeen ko fi nga xam ne dañ fee def ay barrage fépp fii lay góor ñi di duggee fii lay jigéen ñi di duggee te kenn du jaxasoo moroomam nga xam ne loolu doonoon na lu ñor sëriñ bi te képp koo xam ne yaa ngi dugg da nga takk maska da bépp sas barrière boo xam ne teg nañ ko da ko def lépp ñu teg ko ci ndigalu sëriñ bi rek wax dëgg yàlla amul benn jaxasoo lépp tegee na ci taalibe tegee na ci yoon wax dëgg yàlla rafet na lool am na lépp am na fi kuy fi ci njàppandalu takk der yi ak waa kër sapeur pompier waa bi mel ni seen côté lépp yemb na. dëgg yàlla amul benn jaxasoo lépp tegee na ci taalibe tegee na ci yoon wax dëgg yàlla rafet na lool. am na lépp am na fi ku fi dugg ku nekk danga laal zel danga takk maska te danañ sàmmonteeg sarta yi nga xam ne moom la ñu sëriñ bi digal. lépp rek ngir màggal gi doon beneen ndam ci borom bés bi ak itam ay talibem. lépp lu fi ñëw dinañ ko mën a dékk ndem soom na sëriñ bi ndax wax dëgg yàlla am na ay ñi nga xam ne indi nañ leen fi muy lu mel ni palis. ak sandarma ngir ñu jàppale mbokki taalibe bi fi ne moo tax lépp lu fi mbooloo bu fi ñëw rek incha allahu taala mën nañ koo dékko lépp luy sast barrière danañ ko respecté git incha allahu taala ndax matee nañ ko wax dëgg yàlla te lépp dañ koy teg ci yar ak teggin ak xam-xam ak njàngaleem sëriñ bi عليه صل وسلم